Sang amna lo junjon xamna bobu ni nga tangé buma waxtan won ak yow rek do wacc nga ne dëkk bi na fi yam aji sar ak sunko da fe wara yam da fe wara yam deug deug lu wala lu ko wala lu ko bëgg jot. bes bu ne ñu nan sunko aji sar sunko aji sar nañ leen nit nañ leen yërëm jaamu yàlla yi am na leneen loo xamante ni dëkk bi moom la soxla. tey dama lay wax ne Sénégal yàlla may na ko richesse. ba léegi risuñ. yàlla may nañu richesse ba léegi risuñ. tey bu dee ne wàllu spiritualité. sëñ Touba ku ko am loo ñàkk. Sidi Aji Malik ku ko am loo ñàkk. Baay Ñas maam bu Kunta maam Limaamu Laay. Sidi Omar Fuuti ñàkkuñ dara ñu dem ba nga xamante yàlla dimbale nañu suñ suuf si am na loo xamante ni yàlla baaxe nañu ko ñu ne am nañ or ñu ne am nañ pétrole ñu ne am nañ gaz ñu ne am nañ xorom ñu ne am nañ fer ba léegi muy dëgër sëñ bi loolu war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat suñu boppam fi laay jaar di interpeller ki nga xam ne mooy njiitu réew mi dama la wax ne na yërëm ñi nga xam ne la boot président Macky Sall di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex fu mu toog ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci ginnaawam su ma amee lu ma koy wax mooy na bàyyi xelam xel ne ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci ginnaawam mooy ñi nga xamante ni tey ñoo ko dugal ci lépp loo xamante ni dëkk bi mu ngi fa tollu ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñooy ñi nga xamante ni tey jafe-jafe dëkk bi yëpp ñoom ñoom ñu ngi ci. tey dëkk bi foo toll di dégg ay milliards milliards milliards nga gis koo xam ne tey bu añee du du du ndekki du re bu ndekkee du añ wala bu añee du reer sëñ bi loolu war nañu xoolaat suñu bopp. jeunesse bi tamit buñ xaar lépp ci état ndax dama lay wax ne la jeunesse bi buñ xaar lépp ci état mooy état munu dugg ci kër gu ne mu fëgg munu dugg ci kër gu ne mu dugg ci néeg mu fëgg munu dugg ci néeg bu ne mu jàpp loxo loxo jeune bu ne ne ko ñëwal kon jeunesse bi war nañu mën a taxawaat Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahi Niass si ziara Baay Niass bi passé dégg naa muy woote ne nañ leen delluwaat ci tool yi kon bunt la pour xale xale yi wala jeunesse bi man jeune laa dama bëgg soo mbokk jeunes yi nañ leen jóg ñu taxaw tabax su suñu dëkk bi tabax su ndëkk bi nag mënuñ koo def ku dul jeunes yi waaye mag ñi nañ ñu gunge mag ñi nañ ñu gunge di waxaat beneen yoon ne waxu Sonko Adji Sarr nañ leen ñu dimbale chaque jour nga dégg koo xamante ni wax na ci tey ñu ne euh, diw diw suba ñu ne diw wax jooj na jeex ngir yàlla nañ leen dem ñu tëj wax jooj ñu seetuwaat leneen wax naa la fi keroog ba ngeen fi mujjee ñëw ne def naa si fay coow bu rëy dama lay wax ne la xay du yem ci bopp borom xay du yem ci bopp borom tey saa borom bi rëbb na ku yee na nit ñaa ngi ñëw di ci wax bis bu ne di ci wax bis bu ne dama lay wax ne la am na ñoo xamante ni tey ñu ngi fas yéene yëngat yëngu yëngu ci wax jooju yënguwaat ci wax jooju duñ ko fekkee képp koo xamante ni soobee yàlla bëgg na yëngatu yëngalaat lu mel nii sunk Adji sar soobee yàlla du ko fekkee. dama lay wax ne muy Adji Sarr muy Sonko muy keneen koo xamante ni mi ngi ci. nañ bàyyi wax jooju mu jeex Sénégal am na leneen loo xamante ni soxla na ko am na leneen li nga xamante ni moo ëpp solo am na leneen loo xam ne moo ñuy jëriñ am na leneen loo xam ne mooy développé suñu dëkk lu dul ñuy xëy bés bu ne di wax Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr te dama lay wax ne mbir mii damaa xam lu bari ma noppi. tey am na sëriñ soo xam ne ñu ngi nekk seen biir ruq di xeex tey yéen a ngi dégg benn juge bi nga xamante ni tey dafa feebar bàyyi leen xel bu baax ci li may wax dama la wax ne am na ñoo xamante ni tey ñu ngi def seen lu seen seen seen i mbir ci suuf maanaam xeex la ci biir xeex lan moo ko fi jar Sénégal gém ñu bokk ko Sonko doomu Sénégal tey bu amee bu amee bu amee ndam Sénégal la amal ndam Adji Sarr doomu Sénégal la amee ndam Sénégal la amal ndam président Macky Sall bu amee ndam Sénégal la amal ndam kon coow fan la ku ci nekk di xëcc pour sa intérêt wu bopp nañ nañ xëcc pour intérêt wu Sénégal nañ xëcc pour lu yëkkati suñu réew waaye coow li suba coow li ginnaaw suba El Hadj moo ko wax diw moo ko wax ñi ñan ñi ñoom ñooy ñoom ñooy ñan ba tax ñu xëy bëgg a taxaw su nopp yi bëgg ñu sonal ñu ñëpp nañ leen ñaan yàlla yàlla jeexal fi coow li siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu